jërëjëf Serigne Amdi Moustapha Lo ah, wa shahida shahidun min ahliha ah, jërëjëf Serigne Moustapha Lo ñu ngi lay sant ah, sëñ Moustapha Lo mii de daanaka waxam ji jar na sax kenn bañatee wax ñëpp noppi ñëpp noppi kenn bañatee wax ndax egg na foo xam ne dañ ko daa wër te kenn daawu ko tudd te egg nañ fa jullit ñi ci àddina bi fu ngeen dégg ñu di leen rey kuréel gii Ahmad Lo samp ci Sénégal ñoo koy def fu ñu leen gis ñu di leen bay bayal nguur ga fa nekk di leen bay bayal la tax mu di leen bay bayal ci seen doole ñoom lañ bokk ndax fépp fu ma dégg ci àddina bi ñu di fa xeex dañuy xeex ak jullit ña fay diggéey yu ànd ak nguur nguur nguur ga àttewul islam kon fuñ am ñu balin fa seen intérêt la même mali gi ngeen leen dégg ñu nekk fa uranium ba nekk ci mali fa or ba nekk fa pétrole ba nekk ci mali féete côté niger fa lañu wàcc galgande ko mu tëj te tubaab yi en tant que Mali sukk ñu ci seen kanam raam won leen ne dimbale leen ñu ci ñii ñu jóge fi te li njariñ ngeen jël ko tubaab yi duñ bàyyi mukk mukk mukk mukk bu Sénégal ak Guinée Gambie ñëpp àndoon laxasu dem na dañuy ànd ak waa Mali xeex ak ga xeex ak yi tamit tubaab yi duñ ko nangu yaa ngi dégg euh, Rwanda nga ne li lañ jóge ñëw pour jàppale leen tubaab yi nanguwuñu ko. Rwanda benn intérêt indiw leen fii Wagner yi ña nga jóg ci Union soviétique ñëw pour jàppale tubaab bi nanguwuñ ko tubaab yi seen vingt quatre heures xajul ci ñooñu waaye ñoo leen fa indi ndax ñoo leen armé woon ca Libi ñu xeex Kadhafi waaw xeex ba jeexee Libi gars yi tourné ñëw ñëw Mali ñëw dal fi Mali ëpp ëppale alal senegal dafa am li Mali am tubaab bi ñoo bàyyi ñii fii te ku ko waxul de li tax ñu bàyyi leen fii ñu bàyyi leen fii nii dañ leen a bàyyi fii nii pour ñu jariñoo suñu réew mi di ko ratt ba dara dootu fi des bis bu réew mi taxawee loolu duñ ci duñ ko nangu gars yi danañ taal dëkk bi man wax naa leen ko ba tàyyi te du ci mas arrière loolu mooy li sëñ am di Moustapha Lo mii di wax li leen taxat laxasu ne du ngeen tàqaloog waa Touba du dara amu leen fa awu dooñ amu leen ko Touba li wér te wóor mooy da ngeen a bëgg rek nguur gi wegee leen Touba da ngeen a bëgg nguur gi wege leen tubaa ba tax ngeen ne ci dëkk bi di lëmbe te kenn du mën a jot ci yéen ngir Serigne Touba waaye Serigne Touba moomu nga xam ne ci keppaaram gi ngeen nar a laqatu feek laqar ci ku leen fi dangeen mucc waaw du ngeen ko musal musal ak njabootam ah, waaye yéen bu ngeen waxul Serigne Touba lu ñaaw itam ñi ngeen di yar ñi ngi koy wax ci Serigne Touba ah, jullee nga ci jumaa ja timis lu tax nga jullee fa da ñoo wor waxoo woon loolu yow yaa ñu ne woon jumaa ji lépp ay kufriyaat ay kufriyaat dong la ay kufriyaat la mooy li ne ci jumaa Tuubaa bi ay kéefar kéefar képp fi ne te ki koy wax ne yaa ko ko wax ba noppi nga jullee fa su fekkente ne yow doo wax Sëñ Tuubaa lu ñaaw Ibrahima Khalil Lo du ko ko wax te yéen ñi ngeen di former di leen jàngal ñoom ñooy wax sëriñ bi lu ñaaw te bés bu ngeen xawee wane lenn luy niroog lu rafet ci sëriñ bi rek ñoo ñu ngeen doon jàngal weddi leen ci saas ne leen li ngeen wax amul ndax da waxu leen ñu woon loolu lu tëë xam dafa yàggul lu tëë xam dafa yàggul da ngeen a arrangé na gouvernement bi ndax fi mu nekk nii ñoom ñu ngi ci seen óola laa ñoo ngi ndaataata la ndax fekk nit ñi ñoo ngi nekk ci eh, débat yooyu di ko coow talatuñu dara ba dara yee booloo jeex ñoom dañuy am jàmm nekk ci seen salaam seen garde fu ngeen yéen seen pënu pënu secours ngeen ñoom da ngeen leen a da ngeen leen a ñu baleen fii waaye bis bu ñu demee ba xam ne arrangé tu leen leen pour ñu jóge leen fi motul vingt quatre heures waaye da ngeen leen a arrangé ndax nooñ yi ñu am te mëna lu leen dara mooy sëriñ si te buñ sañoon tey balaa am vingt quatre kenn dootul déglu kenn ñoom ñu ilif ñëpp di dogal lu leen neex loola mënuñu koo am ngir sëriñ si kon képp kuy niiwal doole sëriñ si di tas seen mbooloo di leen di leen maanaam di leen ñàkkee teggin ak di xotti seen warma bi ñu leen jox ak di jim ne leen nit ñi débarrassé bàyyi leen ba ñu nekk ay sàmba njorondaay gën a booba day ànd ak yéen ci ne pat di seetaan ndax lañu lam citoyen citoyen ordinaire yi nga xam ne moom lañ bëgg sëriñ si doon ko yéen yéen soo seen dàll pour def ko sëriñ si kon yéen a ngi liggéeyal déglu leen bu baax li seen doom jii di seen rakk wax man de looyeen ba mu daj yéen ñaar ñii laa ci gis ngeen mel nii gisuma beneen looyeen bu mel nii yéen looyeen ba mu daj ku ci wax rek lu rafet lu am sutura lu yàq daru nit du xeeb nit la ñuy wax waaye daxala naar daxala naar mushrik daxala naar bidaa yi daxala naar bidaa yi daxala naar bidaa digg dem bitim réew dikk rek indi ñu dugg nga safara bi daa nga nekk nga safara bi daa nga nekk nga safara mel ni yéen yàlla leen yoni wax dëgg yàlla bu ngeen xooloon ci seen rakk ji di seen doom wax dëgg yàlla di ngeen di ngeen di ngeen ko man de damay teggi sama tànk seeti leneen ndax xam ne ginnaaw seen i bokk andu ànduñu ak ci li ngeen li ngeen ne te taxul ngeen bàyyi ko kon jàmbur bu ci wax day yàq ay waxam waaye ngeen ko loo looyeen nag lu leen waaye wax tooñ leen tobb day am ci lu ne looyeen lu leen waaye wax tooñ leen guy day jur ab xetax guy dana jur ab xetax guy day jur xetax xetax yen nag guy la gu jur ab xetax nañ jàpp xetax bi ne daa topp guy gi rek waaye jërëma guy gi moom rek tax ba dang la def mën nga caa wiiru